defal la baaxee la defal la astawfiq ak taysir nga mën a am loo mën a yër ci mbindu sëriñ bi am loo ci wax dem ba defee ne yawa te fekk du yow sëñ bi kenn xamu ko ku dul yàlla wallahi alazim di nga gis ku wax a wax dem ba ni li ma ci xam kenn xamu ko maa ko xam wala firi benn baytam fekk réer la bu yàgg waaw ëpp na la ndax dépassé na la. waaw. na saxaabi yi daan def. bala ñoo waxtaane sallallahu alayhi wa yeesalaat seen njàpp. xoolaat seen pas-pasu biir soog a jublu penku sax lañuy def. Mhm. toog mhm. jël ci aslëf. loolu yonent bi dafa am ñu mu ko donale mhm. waaye topp kalaamu arabiya bi lii ak lii ak lii luga bi maam indi ak la mu wax ak na mu ko waxee kooku ilham la jógewul ci kayit jógewul ci àlluwa wa ilham la jógewul ci këyit man de maa ngi koy wax keroog xalifa bi ma ne ko bokk na ci bi ma gën a yéem moom ci taalif yi mooy jaz ndax xaaju di laa koy dégg waaye da ci gis ay xeetu salawaat yoo xamante ni

takk wallaahi piir moo koy may ak dem ba jeex ci yàlla takk takk takk dara nit nit nitu neen ku mel ne man mën na toog bàkkoo ni bi maa ko xam keroog da koo gën a réer mm. yow naa damay fàttali dama déggoon sax ci waxtaanu ma doon def ñu nettali alaajam bi ñu waxoon وزاني اللي في الباي منهم كنا لسياح وخمي إذا بيجي يعني برا من خم خم إيه زين بقى اللي بين اللي بيجيبوا يم لو مس لو لو رفت اللي يكون مثلا قد خام خير البسيط مستخيا للزمن إلى ذا يتكبر من فدا من نم فما الكل بدل بس عندي بس اللي ويا أنا جاي بوا قادر يتكلم زين زين زين زين

ma ñu ko rek dëgg la mbokk jërëjëf waaye na ci ma ñu doy jërëjëf mbokk ma xam ne ko dem sëñ baa ngi jërëjëf ma ko xalaate rek jërëjëf jërëjëf ba xel ñu am ci ak jàpp ñu am ci yow jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu yàlla doomay gudd fan ko ñu ko wër ci sàmm ñu ko masruwaat yi suñu yëpp lépp am وفكك وديتك ومن الطالب وانت برضه ما توقفش جنبك بارك الله فيك امين بك امين امين امين امين امين jikko joo xam ne ci yow ci jikko yu mag yow waaw la si biir bu ma ci dugg baatin daal yàlla jaay bu ma ci dugg waaye xajaw gi xam ni ku jóge cër ma xaw wala Kër Makala bu ñëwee mën laaj gis ne sama gars yi dañoo feebar bu doon si loolu waaw. waaw. ku jugee ku jugee euh, Kër Makala wala Ñaxal bu ñëwee ay ginaaram bu feebaree ñu mën laa gis. nga dalal ci xelam loo ci mën nga def te loolu ñun loolu la doyee. loolu moom si la ñu daanaka sant bu baax a baax a baax. yaatal ak xajoor ak def lu baax bi te yàlla tax bu loolu da nga koo doog a tàmbali ne déedéet yàgg gën a ay ndax man moo la xamee léegi waaye nii rek daal xam doon seere yoo xam ne nag day faral day waral buñ gisantee ñu baaxante bi suñu biir day day day ab soññee ne suñu nit ñun ñi nga xam ne ñoo la gën a féete ñoo la gën a ñoo a féete lu daw bëgg lu baax rek sax loolu la tey boo nee cinq heures cinq nga ci penc hmm. loo ko bëgg wax mën nga ko wax mu tontu la lam lay tontu waaw hmm. amul loolu loolu hmm. ko mënul ngeen dalal suñu loolu rek moo loolu rek moom li ngay ñaanal yàlla guddal foofu may na kattan yàlla yàlla tere waaw te it am am nañ ci am am nañ ci am nañ ci yaakaar waaw te it booy booy wax ci sëriñ bi wala ngay wax ci say ci say maam day doon wax ñu leer nañ nga xam ne du doon ay xurafat ren ci quartier général dama gis ñu dugg ci xaaju bi da nga jànn mesal dama la waxoon def nga ko dee leen wax ci li sëriñ bi te yem ci li sëñ bi beneen beneen wax li sëñ bi da ngeen yem ci ndax am na ñeneen ñu leen di déglu waaw. ah waaw ah, ah, waaw ah, xam nit ñi moom dañuy suivre tey doo ko yëg waaw. ah. That's